opéré ñenn ñi ñoo ngi dee ñenn ñi ñoo ngi ci sursis fan yii nga xam ne moom la ñu génn am na benn xale bu góor bu tudd Njawar Seen moom nag yoroon na sax lu toll ci ñett ci ay millions yu fekk juróomi téeméer ci ay junni waaye nag gisul kenn ko xam ne maanaam opéré na ko dafa mujj ñàkk bakkanam te xaar na lu toll ci juróom benn ci ay wér amul kenn ku ko assisté amul kenn ku ko jàppale te nag Njawar Seen moomee loolee nga xamante ni dund na ko ba ñàkk bakkanam gisul ko ko opéré na nag ay xale yoo xamante ni jamono ji loole la ñuy dund maanaam même situation machine bi nga xamante ni maanaam moo centre cardiopédiatrie bu hôpital Fann xam ne moo war a opérer xale yi machine ba moo paan yéenekaay gi ne na jamono ji nag lu toll ci fanweeri junni ci xale yoo xam ne amee nañu jafe-jafe xol maanaam ñoo ngi ci réewum Sénégal te nag bu ñu sàgganewul ñoom ñëpp ñooy dee yéenekaay gi nee na centre cardiopédiatrie bi nga xamante ni moo nekk Fann ci jamonoy coronavirus ji dañ koo jëfandikoo woon nag maanaam di si faj ñi nga xam ne ñoo amee coronavirus jamono jooje nag ñi nga xam ne ñoo amee jafe-jafe xol ñoom ñu bàyyi leen ñuy xaar ñenn ñi di dee ñenn ñi di dund ay jafe-jafe yu métte métti yéenekaay gi nee na nag loolee la nga xamante ni moom lay wundu maanaam jéem a lijjanti ñi amee coronavirus ñi amee jafe-jafe xol ñoom ñu sànni leen ca mbedd ma yéenekaay gi di source ak Sud Quotidien xëy duñu xibaar naan ñi élection locale yi jàpp nañu ko ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier atum bi nga xam ne moom la ñu dëgmal yéenekaay gi la témoin xëy ci découpage administratif bi nga xam ne dafa gis na séddale bukki la ko Omar Gueye séddale Omar Gueye njuur bi sàmba biik yaayam dee noonu a Omar Gueye def ndax Omar Gueye nag na nga xam ne moom la séddee boppam moo doy waar genn xeetu doy waar goo xam ne fu ko natt passé naka ndax nag dëkk yi nga xamante ni maanaam nag dafa bëri suuf loola ak dëkk yi nga xam ne nit ña bëri nañ loola ci wàllum élection ak dëkk ya nga xam ne am nañu nag ay recette fiscale dëkk yooyu yëpp la Omar Gueye jël na ngar daa dugal ko ci commune bu Sàngalkaama yéene kaay na découpage administratif bi nga xam ne sumb nañu ko coow la bëri na ca loola ndax ñi nga xam ñoo dëkk Mbambilor ànduñu ci ñi nga xam ne ñoo dëkk yenn ànduñu ci ñi nga xam ne ñoo dëkk kunun ànduñu ci Barakay mi nga xamante ni PDS la bokk nekk maire bu yëmbal sud nee na dàkkurul benn yoon ci yëmbal sud ñu jël ko dugal ko ci département bu Kër Masara yéen kaay gi de la Tribune xëy duñu xibaar sunu président yi nga ne nekk ci déndu Afrique ni nga xam ne moom la ñu saax-saaxee alalu askan wi ci la yéen kaay gi dikk nee na ancien bu Mauritanie di Aziz maanaam fekk nañ ko nag ci ay loxoom lu toll ci 470 milliards ak lu toll ci 65 kilo or yéen kaay xëy na na ci Amadou Diarra mi nga xam ne moo nekk maire bu Pikine Nord jóge na ci PDS dem na fekki Macky Sall journal bi nee na Macky recevoir na ko niki démba yéen a kaay gi de la Tribune nee na Amadou Diarra maire bu Pikine Nord moom nag dafa wàcc ba pare daal koy lekkaat ndax fii la taxawoon wax ne du ma a ànd ci ak Macky Sall lépp génn na ca yéen a kaay gi di réew mi ko di jeex xëy duñu xibaar naan ñu viol bi jamono ji ma ngi takkar ci réew mi réewum la bi bëri na fii siif ki gi ma ngi mel tulleeg màlle ndax lu toll ci fukk ak juróom téeméer ak juróom fukk ak benn ci ay jëm ci wàllum viol yoo xam ne atte nañu ko yéene kaay gi délibération enquête xëy dañu xibaar naan ñu journaliste bi di Pam Ndiaye bu wal fajiri jamono ji ma ngi cab gardaw yi dafa am ñaari plainte yoo xam ne moom la ñu ko plainte la ko waral nag ña ko plainte nee nañu Pam Ndiaye da leen a dikk na leen bu ngeen ma joxe xaalis seen mbokk yi nga xam ne tëj nañu leen si kaso bi dinaa fexe ba ñu génne leen ndax am na ay ay xaritu moo tax ñu gardaw yi ko yéene kaay gi du l'observateur moom lañ doon toppee lu jëm ci wàllum kera ca diwaanu Paris la France blanchiment de capitaux Lamine Diack ñëw na ci réew mi yéene kaay gi de la sax xëy xibaar naan ñu capitaine Touré moom mi nga xamante ni dañu ko defoon arrêt de rigueur lu toll ci soixante jours jamono ji daan nañu koy bàyyi yéene kaay gi nee na waaye nag procédure ba day wéy ndax la nga xam ne moom la ñu koy toppee maanaam dafa violé li nga xam de réserve yéene kaay gi di réew xibaar naan ñu Macky dafa bëgg fast track li nga xam ne mooy recrutement yi jëm ci jàngoro lay doon Assane Samb nee na soo muytuulee danañu sa yegg ndax bu ñu jëlul ab temps bu sëkk daal di tàggat ñi nga xamante ni ñooy jàngalekat yi ba ñu mën a jàngale élèves yi njàng mu baax bu ñu ko deful la nga xam ne moom lay jur maanaam jàngale ay élèves yoo xam ne bu ëllëgee si biir danañu nekk ay étudiants yoo xamante ni yu médiocre la ñu doon maanaam yoo xam ne xamuñu xaali wala kasirana te bu boobaa nag ngir ñu am liggéey maanaam dina gën a jafewaat lool yéene kaay gi di Sud Quotidien ak Walf Fadjri xëy duñu xibaar naan ñu korite ren gi dina metti ba ndax nag ginaar ci boppam maanaam moom manqué ginaar doom